maa ngi nuyu képp ku fi teew di nuyu directeur yi ak chef de service yi nga xamante ni ñoo bokk ci ministère bi di nuyu le conseil national de la jeunesse ici représenté par euh, monsieur Mouhamed Gueye président du conseil départemental de la jeunesse de Pikine di nuyu également association yi nga xamante ni fii ci présidium bi waa Croix-Rouge ak monsieur Diallo ñoo leen représenté di nuyu képp association bu fi teew ak ñi fi jël parole également di leen gërëm di leen sant di kontaan tey bokk ak yéen jotaay bi jotaay bi nga xamante ni li ko wund mooy lenn ci suñu programme yi nga xamante ni moo bokk ci ministère de la jeunesse maanaam accompagner association yi ak mouvement yi nga xamante ni ñooy yëngu ci mbiru ndaw ñi ah loolu nag bu amee tey dañoo def lu dul topp li nga xamante ni nii mooy mission yi nga xamante ni moom lañu président de la république sant ci suñu liggéey bi nga xamante ni nii moom nañu am ci ministère de la jeunesse bari na lim ñu sant waaye tey li ñu ñëw tey indi ñu mooy accompagnement association yi ah loolu nag bu ko defee tey jii bëgguñu lu dul association yi déjà gis seen bopp ci li nga xamante ne état bi Sénégal mi ngi koy def euh, à travers d'autres ministère ak organismes yi nga xamante ni ñi ngi bokk ci état bi ñi ngi bay seen waar waaye dañu jàpp ni ministère de la jeunesse kenn waru ko ci jiitu ndax mooy ministère de tutelle bi loolu moo tax ren ñu gën a yaatal ñu indi ay innovations yu majeures benn bi bokk na ci euh, li nga xamante ni ñu ngi leen di tuddee culture urbaine ndax jamono dafay dox ku nekk xam na ni ndaw ñi léegi euh, li jëmee ci réseaux sociaux internet ak mbiru graffiti ak mbiru culture ci boppam daf leen ñor lool seeni mbir dañ koy exprimer ci ay ay bind ay wax ak ay li nga xamante ni nii mooy euh, graffiti wax naa ko sànq ah yooyu yëpp dañuy ci exprimer wu ba tax na ku leen bëgg a jàppale da nga leen ciy fekk ci loolu jàppale leen ci ba nga xamante ni message ak mission yi nga xam ne bëgg nga ñu jàllale ko ñu jàllale ko foofu te dañoo am rôle sensibilisation ak accompagnement kon ñoom dañoo bokk ci mbir mi bu ñu leen ci boolee ci nañ bokk buñ ci buñ leen ci boolewul ci nañ bokk donc ñi ngi leen di gërëm bu baax di gërëm Matador ak ñi ñu àndal ñëpp defe naa ni lii buñ ko defee tey topp tamit euh, ndigalu président de la république la ndax xam nañu fi mu toll fi mu toll ci culture urbaine ak cër bi mu leen jox jour conseil présidentiel bi gis nga leen euh, part bu am importance la réserver ñi nga xamante ni ñoo yëngu ci culture urbaine ndax jamono dafay dox dañuy dox ànd ak moom dans le bon sens bien sûr ah di wax tamit ni démb ku nekk dégg na conseil des ministres président de la république gërëm gi mu gërëm croix rouge gërëm googu nag euh, yamu ko ci rek président dafa yëkkati subvention cent million jox ko croix rouge sénégalaise loolu accompagnement la ba nga xamante ne ni moom moo ko décidé jàppale ko croix rouge nationale croix rouge jeunesse nag bokk ci ministère de la jeunesse euh, ba avant président di wax ñun décidé woon nañu accompagner croix rouge parce que xam nañu rôle bi ñuy joué ci mbiru xeex euh, Covid bi ak leneen ak leneen dañ ci bay seen waar bu baax a baax donc bu ñu leen gisee ci loolu dañ leen di accompagner comme ni ñu accompagner yeneen association ak mouvement de jeunesse bref euh, actes yi ñu posé xeeb nañ ko trop parce que gis nañu ndaw ñi dans les associations njëriñ bu ñu am ak ni ñuy yëngatoo te dañuy ñaan chaque année enveloppe bi di gën a yokk ren ñi ngi ci plus de million millions euh, dañu bëgg incha allah yeneen jalons yi ñu posé mu gën a am importance di gën di amal njëriñ ndaw mi mais nag loolu bu ñu ko defee dañuy ñaan tamit ndaw ñi ci li nga xamante ni moom nañuy ñëngu mu gën a amal utilité askan bi amal gën a amal utilité seen moromi ndaw mi mu nekk ay moyens de sensibilisation mu nekk ay moyens yi nga xamante ni day gën a renforcer li ñuy wax civisme citoyenneté bëgg seen réew fonk seen réew ak defal seen réew mais également toog ci seen réew réussir fi loolu mën na nekk président de la république loolu la comprendre bëgg ko ba tax na mu teg programme bu am solo jël 450 milliards def ko ci muy programme xëyu ndaw ñi kon nag kooku jël na ndaw teg ko ci priorité mu njëkk ndaw li nag nañu xam nañu gën a xam li ñu bëgg xam nañ sax li ñu bëgg parce que ku nekk ku dem ci association yi di nga gis jeunes yi ni ñuy yëngatoo ak engagement bi ñu am loolu nag dañ leen ci félicité di leen gën a ñaar waaye également di leen garantir accompagnement ministère de la jeunesse déjà suñu service yi sentir ngeen leen à vos côté parce que direction de la jeunesse mi ngi fii direction de la vie associative ak yeneen i direction ñoom ñëpp dañoo nekk à votre disposition pour accompagner leen jàppale leen nekk à l'écoute des associations mais euh, plus généralement des jeunes donc euh, loolu daal moom nañ leen di dénk di leen euh, jox bu vous très bientôt am na ko fi ñi ko wax sànq li mu wax am na solo xaalis bi du pour organiser ay euh, bal ak ay cocktail euh, xam naa ni sax am ngeen conscience boobu bu baax a baax a baax jarul ñu leen koy wax mais fàttali la rek pour que beneen yoon ñu gën a mën a sawar pour accompagner ndaw ñi. waaw subvention bi ministère bi di def jëmale ko ci association yi nga xam ni ay jeunes ñoo ci nekk surtout jeunes yi nekk ci culture. précisément culture urbaine euh, dañ koy rafetlu parce que ça fait plus de trente ans que le hip hop existe ça plus de quinze ans que ñu am ay association di def ay activités li ci ëpp ci ay formation te mosuñu gis ministère bi suñu côté te ñi ñuy jox formation yooyu yëpp ay jeunes sénégalais lañ yoo xam ni vraiment dañ ko soxla tey bu ñu ñu associé si subvention bi ministère bi di jox ay association vraiment pour ñun reconnaissance la et respect la ak honneur par rapport ak li ñu jot a liggéey ci réew mi donc euh, vraiment dañ ci dañ koy rafetlu di ñaan mu gën a yokku parce que association yi aussi dans les cultures urbaines aujourd'hui mën naa wax ni ci ak fonds de développement des cultures urbaines ñu ngi ci deux cent quinze structures yoo xam ne dañuy liggéey ci culture urbaine donc euh, ëpp na dootul ñaar dootul ñeent et ministère bi war na ci tenir compte bu baax gën a jàppale association yi surtout ñu nekk ci région bi. damay rafetlu organisation invitation bi nga xam ne ministère de la jeunesse wax na ko léegi léegi euh, damay fàttali démb woo leen dégloo conseil des ministres président de rafetlu liggéey PAOJ mooy def ci dëkk bi. ba nga xam ne sax dafa demande à sax tous les ministères yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci gouvernement bi ñu ñëw jege PAOJ travail en partenariat avec la PAOJ la ni ma ko waxee. Euh, loolu nekkul rek Croix-Rouge sénégalaise mais dafay teg tamit l' ensemble des organisations organisation de jeunesse si nekk Sénégal yëpp le reconnaître donc c' est important quoi donc ñu ngi koy rafetlu ministère bu ñëwee jël benn subvention jox ñu ko euh, day day daf ñuy gën a dimbali daf daf ñuy ñaax pour ñu gën a yokk travail bu ñu def si le terrain bi comme ni ma ko waxee bu ñuy jël ndaw yi di leen yóbbu ay camp ñuy defaraat école yi mbaa ñuy defaraat di sensibiliser di bale di mbedd yi di di fomp il faut de ñu leen di transporté il faut de que ñu leen jox ñu naan ñu lekk tout ça loolu dafa xaalis bu fekk danga am ay dix mille ndaw mbaa vingt mille ndaw dafa dafa cher dafa métti et souvent organisation yi amuñu doole amuñu xaalis boobu pour def liggéey boobu moo tax bu lee ministère bi ñëwee jël somme bi jox ñu ko daf ñuy gën a dimbali nga xam ne ni ñu régler problème yooyu quoi donc de loolu nag dafa war a nekk loolu nekk benn yoon dafa war a nekk chaque année ministère bi di ko def mbaa yeneen ministère yi nga xam ne ñëpp parce que la jeunesse elle est transversale ce n'est pas uniquement suñu ministère de la jeunesse mais les les autres ministères dañoo war a contribuer ci effort boobu pour que le travail là se fasse correctement. tey dañuy am euh, mbégte lool di teew fii di jël ci ndimbal bi nga xam ni moom la ministère bi yor wàllu ndaw yi di jox mouvement de jeunesse yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy takk fulaar yi lu ci ëpp. ñu koy rafetlu nag parce que dañ daan seetlu ni ñun ñoo daan bind bataaxal di ñaat ndimbal di topp ci ginnaaw di daw. tey buñ ñu woowee jox ñu ko ah dañuy tàccu waaye dañ naan ministère bi suñu gënee mën a accompagner tey ñi ngi gis ni ñi ngi tijji ay pôle ay ay pôle emploi ay maison de la jeunesse mais tey li war a jug li war a suqaliku mooy li ñuy tuddee éducation populaire parce que gis nañ ni dëkk bi déperdition bi bëri na ah bu bu yëngu-yëngu amee xale yi ñooy génn ci biti toj yàq jaxase lu nañu def ko alors que tey waroon nañ mun tijji man li may tuddee Euh, école éducation populaire nga xam ne day nekk ay ay jumtukaay yoo xam ne mouvement de jeunesse yi di mouvement Haalpulaar yi pour la plupart wala mouvement yi nekk ci collectivité éducative daañ fa mën dajale ndaw ñi ci biir année scolaire bi di liggéey ak ñoom mais bu ñu demee ba ci vacances yu mag yi ñu mën leen téye foofu ci ay camp de vacances ay centre aéré ay colonie de vacances ak yooyu war nañ mën sukkandiku ci lu mel noonu pour mën a jàppale parce que éducation populaire moo war a monter en puissance Thank you.